asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki téléspectateurs yi ñu ngi leen nuyuwaat fii nii ci Porokhane précisément ñu nekk ci daara maam jaara bi nga xam ne moo nekk ci Porokhane te sëriñ Moustapha Bassirou taxawaloon ko fi yàlla yàlla yokk ay leeram tas ci barke barkeem mbokk yi bërëb bi nga xam ne moom lañ nekk di ab hôpital bu yees boo xamante nii fondation maam jaara bi nga xam ne moo nekk États-Unis ñu naan ko maam jaara fondation di daayira Maam Jaara bi nga xamante ni moom moo nekk ci réewum États-Unis ñoom ñoo ko fi liggéey mu nekk bâtiment boo xamante nii def nañ ci lu toll ci juróom-ñaar fukki million ak juróom ci sunuy koppar muy quinze million di bâtiment boo xam ne liggéey nañ ko liggéey bu am solo tey jii nag mu noppi mu nekk loo xam ne hôpital lañ koy def di bërëb bu fajokaay ngir ñi nga xam ñoo di Maam Jaara yi nekk ci bërëb bu sell bi di Poroxaan di fi jàngee saa yu ñu soxla li nga xam ne moo di wàllum paj ñu mën leen a faj ci bërëb bi loolee nag tax tey jii ñu ñëw fii fas yéene fi def benn visite nemmeeku li nga xam ne moom moo di euh, travaux yi wala liggéey bi li ci jot def données techniques yi nombre de pièces yi nga xam ne moom moo fi nekk waaye lépp loo xamante ni war na dem ci bërëb bu fajokaay def nañ ko fi ngir mu mën a méngoog bërëb bi nga xam ne fii la Maam yi di jàngee donc mbokki téléspectateurs yi ñu dugg rek gis euh, kenn ci ñi nga xamante ni liggéey bi di monsieur Ngom ñu laaj ko li nga xam ne moo jëm ci chantier bi ak lépp loo xam ne def nañ ko fi ci jumtukaay ngir mu mën a mucc ayib waaye duñ fàtte ne incha allah xalifa général des mourides Serigne Mountakha Mbacké Bachir dana ñëw nemmeeku li nga xam ne moom moo di euh, poste de santé bi xamaguñ ndax poste de santé lañ koy def wala lan lañ koy def waaye bërëb fajokaay lañ mën a jàppagum fi mu toll nii ndax mucc na ayib tey liñ ci def ci jumtukaay kawe na lool mbokk yi ñu ànd ak yéen euh, dem ci biir daal di nemmeeku ñi nga xam ne ñoom ñoo di liggéeykat yi ñu wax ñu li nga xam ne moom moo am ci poste de santé bi nga xam ne ñu ngi ko liggéey fii nii ci Poroxaan ci euh, daara Maam Jaara bi nga lu ëpp euh, ñeenti téeméer wala juróom téeméer maam jaara ñu ngi fi jàngee te li nga xam ne seen wàllum pàcc loolu lépp sëñ bi yor ko maam jaara bi nga xam ne moom moo nekk euh, ci États-Unis liggéey fii bërëb bu mucc ayib bi ñu dugg ci biir rek gis ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk bismillahi fii nii ak daara yàlla sali baqa abi voilà sëñ Adama ginnaaw mu mel ni yow yaa joroon chantier bi nga xam ne mooy bërëbu fajukaay bi ñu tabax ci Daara Maam Thiara bi ñu buggoon a xam liggéey bi kañ ngeen ko tàmbali woon. waaw chantier bi ñu ngi ko commencé rajo bu daaw bi presque am nañ on a waaw essa liggéey bi def nañ ci li ñu waroon def yëpp. kon mois de mars 2018 ngeen ko tàmbali waaw mois de kii lañ ko commencé woon. Mhm. waaw liggéey bi nag liggéey nañ ko liggéey boo xamante ne mucc na ayib trop. waaw liggéey bi li si waroon yëpp def nañ ko si liggéey bi li si ëpp yëpp bagage yëpp li si ëpp yëpp dañ ko importer fu mu jógee États-Unis la jógee waaw waaw léegi liggéey bi liggéey nañ ko technicien bi fi nekkoon muy woon fii mais dafa dem waaw liggéey bi def nañ ko niñ ko war a defee am nañ asit technicien boo xam ne moo dessin pala bi moom muy États-Unis liggéey bi saa ñu liggéeyoon ba wàcc dañ koy am waaye mun nañu lii ak lii la moo dessin palaa bi yëpp lii ak lii li ngeen di def noonu lañ ko doon demee sànce bi boo xoolee si biir toll na ci 500 mètres carrés ci biir mais buñ génnee mooy yaatuwaay bi yaatuwaay bi waaw chambre yi li def nañ suñu chambre yi chambre yi mat na que ay vingt 22 chambre dëkkuwaay ak saal fajukaay ak béreg yi yëpp yooyu yëpp def nañ ko si biir boo génnee si biti barbar bi yokk nañ ko si ginnaaw yokk nañ ko si kanam presque muy si 1000 mètres waaw. moom mooy collecteur bi si biti waaw waaw. liggéey bi nag def nañ ci liñ ci war a def yëpp def nañ ci liñ ci war a def yëpp asetek bi mooy Cheikh John waaw moo yore liggéey bi moo dessin ñëpp waaw asetek bi mu ngi fu woon bu ñu liggéeyoon ba pare dañuy photo am waaye asetek bi ku yor liggéey bi. mu ne def leen li dindi leen li defaat lii waaw loolu def nañ ko si kon métti woon na waaw. gis nañ tamit bërëbu fajokaay la te it euh, am na chambre yoo xamante nii muy salle yoo xam ne bokkut ak néeg yi nit ñi war a dëkk dafa am lu mu laaj loolu tamit euh, dafa mel taxaw ngeen ci. taxaw nañ si bu baax taxaw nañ si bu baax ndax am na chambre personnel mooy ñuy liggéeyee si santé bi foofu la ñuy daje am na salle consultation foo xamante ne. foofu la ñuy consulter am na saal yoo xamante ne tamit malaat yi foofu la ñuy nekk bu ñu leen waree téye foofu lañu leen di téye waaw am na néeg yoo xam ne tamit pour dëkkuwaay la waaw. pour personnel bi fi liggéey. bi fi liggéey waaw. waaw am na loo xamante ne tamit mooy dante bi dante bi tamit am na si biir waaw mooy fu ñuy opérer bañ yeeg affaire yooyu noonu. waaw testis bi waaw. loolu yëpp am na si biir waaw. mu mel ni tamit euh, ni nga xam ne noonu lañ liggéey bërëb bi rafet na lool macha allah euh, ni nga wax wax dafa mel ni plan bi États-Unis la jógee waaye yéen est-ce que mës ngeen a liggéey loo xamante ni mel na nii. waaw wax dëgg neex yàlla bu mu waxee dëgg te yàlla tax mosuma liggéey liggéey bu mel nii mosuma ko liggéey moom vraiment moom technicien bi yor bâtiment bi jàmbaar la dëggantaan daga jàmbaar la dëggantaan ndax lu ñu liggéey bu ñu wàccee dañ koy photo mu ñu lii ak lii la lii ak lii lii ngeen koy defee nii ngeen ko defee ba ñu mujjee am lu lu baaxe nii ak lu rafete nii waaw. voilà mu mel ni ba léegi aadama niñ ko leeralee bërëb bi tamit am na ay jumtukaay yoo xam ne def nañ ko fi ndax ku ne bu fajakaay laaj ay xarala yu yees ay ordinateur équipe bureau yi yooyu yëpp ndax mën nga ñu ko leeral. waaw mun naa leen ko leeral fi ñu taxaw nii fii mooy taabal réception bi. fii mooy taabal réception bi fii nga lañ lay accueillir fii ngay gis lépp fii lañ lay dalalee yëpp waaw chambre bi nekk si ginnaaw tableau kii bi mooy chambre personnel bi ñiy liggéey ci sante bi ñoom ñëpp foofu lañuy ñuy dajee waaw boo ñëwee ba deuxième tableau bi deuxième tableau bi foofu gardien bi moo fay nekk waaw def nañ ci matériel waaw def nañ ci matériel ndax boo xoolee néeg bi si ginnaaw ne hmm, dante bi moo fa nekk machine dante bi. beneen néeg bi mooy pharmacie bi mooy néeg bi nekk nii beneen néeg bi dante bi maanaam matérielu dante bi lu ñuy faje yëpp matériel bi yëpp foofu lay nekk. ki faj bëñ. waaw kiy faj bëñ bi waaw mooy foofu noonu waaw. xam tamit gis nañ couloir yi def nañ fi ay chaise ak lépp ngir ñi nga xam ne ñoo fi ñëw ñu am fu ñu toog. waaw loolu la ndax fii fii salon la pour ñu ñëw ñuy faju mun nañ toog foofu gis nga couloir yi ni yaatoo waaw loolu tamit am na ci solo quoi. waaw waaw daa mel ni tamit euh, fondation Mame Diarra bi nekk euh, États-Unis nga xam ne ñoo tabax bâtiment bu mel nii yónnee nañ fi ay matériels yoo xamante ni war na war na war na war na équiper li nga xam ne moo di poste de santé bi xam naa loolu daañ ci ñëwaat incha allah waaye daa euh, il faut nga am looñ ci wax. waaw matériel bi macha allah macha allah matériel bi wàccee nañ ko nuñ ko war a wàccee matériel bi am na dayo am na sécurité am na maanaam baax na trop daal. baax na trop baax na trop waaw waaw waaw. gis nañ tamit post bi def ngeen fi ay lumière ndax poste santé moom il faut mu lumière yu leer nañ ngir ñi nga xam ne ñoo fi liggéey ñu mën di gis bu baax a baax li nga xam ne moom la ñuy faj waaye tamit ñu fi dugg di xam fi ñuy jaar. waaw loolu am na solo électricité bi jaar na yoon jaar na yoon lépp jaar na yoon ventilo yi ak lampe yëpp ànd installation bi macha allah benn technicien bu baax moo ko doon installé waaw même fenêtre yi. même ni technicien moo ko defar ilaa Touba kooku Touba la jógee waaw. waaw bajaan bajaan la tudd kii sali aluminium bi waaw waaw. kon daal fii lu ngeen fi liggéey lu nekk rek respecté ngeen normes yi nga xam ne moom la laaj ngir bërëb bi mën a mucc ayib. waaw respecté nañ lépp respecté nañ lépp du peinture kat bi peinture kat bi daaw da la. waaw mun na lu muy def torop mun na lu muy def torop. voilà jërëjëf Adama Ngom mu mel ni Daouda moom moo doon def li nga xam ne moo di peinture bi euh, moom it euh, ñu xam dañ koy jël ñu laaj ko ndax bâtiment bu mel nii peinture bu am solo bi nga xam ne moom lañu fi def mu rafet lool macha allah Adama maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay. mu mel ni yow yaa doon peinture batiment bi euh, ndax mën nga ñoo leeral li nga xam ne noonu nga ko peinturé. waaw li ma ko peinturé waaw qualité bu baax la ndax peinture bi ci boppam États-Unis lay jógee. waaw de wax tëgg yàlla liñ ci war def yëpp def nañ ko ci waaw. peinture moom ban xeetu peinture la. peinture bi daanaka catex la catex la gën a jege waaw ay pantex catex yooyu peinture daal peinture européen la quoi waaw en même temps am na garantie daanaka ay vingt ans waaw loolu la. kon daa mel ni suuraale nañ ci naaj beeg ngelaw leeg yi nga xam ne moo di taw bi ndax des fois am na peinture yoo xam ne boo ko peinturé. daanaka bu ko fa nawet bi fekkee su tawee ci kawam rek daanaka day wàcc bi est loolu dal dana ko dal. noo bii moom loolu aw ma ci yaakaar loolu incha allah du ko ci dal ndax peinture moom dañ ko saytu bu baax toog ko indi fii waaw ñu peinture ko fépp fu mu war a dem blanc bi war a xaw ma couleur yi war a dem ci biir gis nañ ko couleur yi war a dem ci biti tamit saytu nañ ko bu baax ba defar noo xam ne saa moom ay problème mu naajeeg ay problème mu ndox yi moom bon amuñ amuñu ci tiitukaay quoi amuñu ci tiitukaay. yan yan couleur ngeen fi def. bon boo xoolee couleur bi bleu la biir néeg yi jaune citron bi lañ ko def bon biti bi orange lañ ko def waaw. gis nañ tamit même pavage bi dañ ko dafa mel dañ ko peinture wala. waaw pavage dañoo jënd peinture sol bi moo nekk ne mooy rouge bordeaux ba ngay seen bon garage bi ñu dagg ko bleu en même temps ak benn trait blanc <laughs> waaw loolu la. foofu bërëb boo xam ne oto bi ñu fa la ñuy gaaree. waaw fee mooy garage bi entrée bee nekk nii ma def ko séparation bu weex. pour nga gën a ràññee affaire yi quoi bule bi fu mu yem ak rouge bi fu mu yem. waaw liggéey bi métti woon na. waaw métti woon na trop métti woon na trop ndax euh, lu baax moom du yomb chaque jour euh, li nga ci war a def rek nga ciy def ndax du liggéey parax paraxe bu doon liggéey parax paraxe yàgg pare nañ bu yàgg mais comme ni ko sama rakk bi waxee noonu la amee. dañuy liggéey ba foo ne ñoo ci nekk mais après dañuy gisaat leneen loo xam ne war nañ ko defaat ñu xam ne fii moom bërëb bi bu amul parax paraxe quoi dangay jël sa temps rek liggéeyal ko maam jaara mu baax benn yoon moo gën mu yàgg te baax moo gën mu gaaw te baaxul waaw. daa mel liggéey bi mës nga kaa waaw bu mel nii daanaka bu mel ni moom wax dëgg yàlla ku bu dee ku deek sa a la mosuma ko liggéey waaw daana am sànc yu mag nag mais bu liggéey bu mel ni moom dëgg yàlla mosuma ko liggéey. waaw yow lan nga yëg soo liggéeyee liggéey bi mel nii ba noppi nga taxaw si ginnaaw di ko xool. waaw damay ànd ak mbégte damay ànd ak mbégte ndax mbégte la fierté la si ban ndax jógee Touba ñëw Poroxaan di liggéeyal ku tedd ki wax dëgg yàlla dama ci am lu ma neex waaw loolu dong laa ci yëg. voilà jërëjëf euh, sëñ Daouda jërëjëf sëriñ Adama Ngom mel ni yow yaa yoroon li nga xam ne moo di chantier bi waaye moom mii moo yoroon li nga xam ne moo di peinture bi. fii ci bërëbu fajukaay bi nga xam ne euh, Maam Diarra Fondation bi nekk États-Unis di fondation Daara Maam Diarra ñu taxaw ci liggéey ko financé ko à hauteur de soixante quinze millions de francs fa waaye def ci ay jumtukaay yu mucc ayib équipé ko jagleel ko Maam Diarra yi nga xam ne dañoo nekk fii ci Poroxaan di fi jànge te lépp seen paj seen dund lépp war sëriñ bi mu koy def ñi nga xam ne ñoo di taalibe yi ñoom it di ci barkeelu ngir ànd ci sëriñ bi. mu nekk loo xamante nii am na solo lool ndax liggéey bi li muy rëy rëy ci benn at lañ ko liggéey mi fi ko weer ñaar ndax mois de mars 2018 lañ ko tàmbali woon mu mat mois de mars 2019 mu nekk benn at donc euh, mu nekk liggéey bu am solo tey jii rek euh, incha allah xalifa général des mourides Serigne Mountakha Mbacké Bachir ni ñu ko waxee sànq dana fi ñëw visiter li nga xam ne moo di chantier bi ñu ànd kook yéen rek ci ni nga xam ne noonu la ñu àndeek yéen ci mboolem reportage yi nga xam ne ñu ngi koy amal fii nii ci Porokhane. من لا شريك له وسوى ما للوعد لذيك يا الله وجاتك اليوم يا رمان منتجيا فوزي بما ستوفي ah di ñëw nag di am mbégte tey jii ci ouverture bi ndax ñëwoon nañ fi di 2017 ànd ak sëñ Abo te mi ak sëñ Ablaye Joxum Paak sëñ sa deex ak sëñ Isaaxa teg xeer wi ak euh, délégation ba ñu ko àndal ren ji bu ñu yàlla defalee ñu toll ci ouverture bi ànd ak soxna Fatim jaw soxna Ndey Sall ak sëñ sëñ Ibrahima Siñaan ak ñi nga xam ne ñu ngi woon ci yoon wi di ñëw yaakaar ne euh, une heure quelque lañ koy def ñu ci am mbégte nag tey mbégte moo xam ni nekkul mbégte mu rey ndax ñun newuñu dul ay taalibe taalibe nag mooy lan mooy doxe ndigal waxe ndigal dañoo yaakaaroon ni rek ni gune fu mu ne ci àddina foo ko dugal muy jàng la mu njëkk a war a mën a def mooy am fu mu mën a fajoo ñu xool ni yittale pour gune yi ne ci daara ji ak lu nekk ci dig-digal bi fii nga xam ni mooy ci biir daara ji initiative boobu nag ñu toog dégg ko léegi nga seen ñuy def muy ay dortoir moo doon suñu njëkk suñu initiative waaye yàlla dogal ni ñu mujj jël lii nga xam ne muy case de santé bi ñu ciy gërëm na di ci sant nag waa Amérique ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant jëwrin bu ne Amérique ak équipe bi nga xam ne ñoo ànd ak ñun di liggéey ba sëñ Modou Mamour Amar jiite ko ñu ngi leen di gërëm di leen sant ñu ñoom lañ bokkal liggéey bi jërëjëf kon ma ci kanam. wajatukal yawma ya ramanu muntajin yan xosi bi ma situfi دنياك يا الله أنت رئيم راسي أرجو برحمتي ألا ألاقي درا منك يا الله أنت رئيم راسي أرجو برحمتي ألا ألاقي درا منك يا الله مليء يميني وعقل بزار يا مليك بلا إسان بيجو دين منك يا الله خدست سري يا قدوس متليا عني وعن كرادي تدار يا الله malaan maa ñu ñu ñu wéradi ah. ba fi lañ leen di fi lañ leen di kii ñu fi noppaloo ñu ñu fi nekkandi ko ñu leen di faj waaw ba defee moom nga ñaan fi ba nga xam ne ku fi dugg rek tàggoog tàggoog tàggoog jàngoro waaw <laughs> bu ko defee waaw kàlla waaw waaw salaam takul yaamin uyoo binal نصيبي تين منك يا الله أنت سلام لسي سلام تكن لي من ويا بنفسي بتين منك يا الله يا مؤمن في جنة waaw jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf waaye nag sant nañu yàlla bu baax sant yàlla bu baax yéen yàlla boole ci liggéey maam jaara bii nga xam ne moom mooy mooy mooy selli ci liggéey bi suñu tool sant nañu yàlla bu baax a baax a baax sant nañu yàlla bu baax te fas seen lépp nag seen lépp seen lépp seen lépp seen itte seen liggéey fa seen lépp. لدول التكريم يا الله أجبرت لي إمات الجبار دون لقم كل انقضاء بلاسي لاخترت يا الله أجبرت لي إنك جبار دون الإنقاذ كل الإداد بنفسي لاخترت يا الله